nu dafa roote ji baaru Kajoor may way ku jara way moo ñu tuuse ay leer may géwél bi ci lislaam xamal ma ko doon ami fidèle internetu Sénégal TV Sénégal point com ñu ngi am mbégte ak contentement bu baax a baax di leen dalal si seen jotaay mbokk yi xam ngeen à chaque fois bu actualité amee dañuy amal entretien yu mucc ayib ñu fàttali leen ne kon ñu ngi ci waxtu gàmm ñu ñaan yàlla ñu dugg si bismillahi rahmaani rahim ak génn si alhamdulilahi rabi alamin lépp luñ ci ñaan rek yàlla nañ ko yàlla defal kon waxtu yi ñu ngi fii si Kaolack comme ni ngeen ko daal di xamee Sénégal set dafa am taxawaay bu am solo si këru diine yi si actualité politique ak yeneen diwaan loolu moo waral ñu déplacé wu ñëw ba fi nga xam ne kon moom mooy fii si këram sëriñ Boubou lay wuyoo nekk maire de Kaolack nekk tamit njiitalu Union nationale de chambre de commerce d'industrie et d'agriculture du Sénégal nga xam ne kon sénégalais namoon nañ ko gannaaw ba mu demee Chine amoon fa ab séjour boo xam ne kon si diggante ñaari réew yi xam naa dina nekk ordre du jour waxtaan bi daañu waxtaan tamit assemblée nationale ak yeneen ponk yi am am solo ma daal koy nuyu ba pare rek su ko defee ñu daal di dugg si waxtaan bi monsieur le maire maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm. waaw maa ngi lay nuyu di nuyu waa Kaolack auditrices yi ak auditeurs yi ak waa Kaolack yëpp. Mhm. dama sow ci coono yi waaye wutuma xabaar moom dafa jafe. su ngeen xoolee journaliste yi nekk Palestine ak nekk Irak li ñuy daj. Mhm. Ah, yaakaar naa dajagu leen ko fii Sénégal pour wutum xalaat kon bravo. jërëjëf waaw xam naa tey moom coono gu métti laa daj <laughs> laataa ma lay am entretien loolu moom am na solo donc. jéey moo nekk coono ji yokk rek ndax ndax tuyaaba rek la. incha allah coono lu bari bari rek tuyaaba lay mujj doon. c'est normal parce que. te booy noppalu day neex. <laughs> jërëjëf monsieur le <laughs> maa ngi gërëm euh, Dieye Sam ah, sama rakk bi moo nekk si caméra bi mooy réaliser si émission bi euh, El maa ngi koy nuyu di nuy nuyu Aïda Diène Hélène ak toute l'équipe bi nga xam ne kon euh, loota ak ki nga xam ne moo mooy Kangou Dione donc ñoom ñooy équipe bi nga xam ne kon ñoom la ñu àndal tey si entretien bi ngir rek mën a taxaw si ay ponk yi am am solo alors monsieur le maire ñu ngi si gàmmu gi ñaari fan kott moo des kon ñu amal li nga xam ne moom mooy gàmmu fii si Kaolack tant que maire de Kaolack premier magistrat de la ville ban kàddu nga fas yéene yëkkati euh, devant la caméra nga nuyu ak ñu lay seetaan. waaw xanaa ziare Sénégal yëpp ziare àdduna bi ndax gàmmu. Mm-hmm. gàmmu du gàmmu du gàmmu du du euh, Sénégal adduna bépp ay gàmmu. Mm-hmm. te bisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ni moom la ko yàlla indi ci kaw suuf. Mm-hmm. boo xam ne bisu ñaan la. ndax eh, alquran dafa wax ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman dane man yàlla mm-hmm. ak samay malaayka mm-hmm. maa ngi julli ci yonent bi mm-hmm. bu baax kon yéen julli leen ci yonent bi te bisu gàmm mooy julli ci yonent bi mooy tudd yàlla julli ci yonent kon nag ñu ci ñëpp te bis bu rafet la eh, ci ñaan kon nag maa ngi wax waa Kaolack yëpp ñu accueillir eh, pèlerins yi fi ñëw yëpp suba sax incha allah dem fële accueillir pèlerins yi nga xam ni ñoo jógee Saloum ñoo jógee ci île de Saloum yi incha allah. incha allah comme ni ñu koy defee at bu yàlla saak. Mm-hmm. alors xam naa ñu dugg si coowal actualité assemblée nationale ak sa dem jeune bi ban bi am euh, comme d' koy defee at bu yàlla si gàmmu ma xam jàppale ñi nga xam ne kon yaayoon nañ ko dimbali leen si wàllum social si euh, wàllum aussi assainissement ak eau usée ba si eau potable bi nga xam ne kon pèlerins ñoo koy jëfandikoo ak yenn yoon yi nga xam ne kon jot ngeen koo defaat mun ndax mën nga see dikkaat waa xam nga maire moom boo xëyee di lim naan def naa lii def naa lii rek hmm. daanaka defoo dara. Hmm. li am solo moom mooy daanaka fépp foo xam ne nii dëkk bi dañ daan xool ni mu daan mel dëkk bi ñëpp dañuy tiit ah, nawet. Hmm. ci gàmmu ah, burul gàmmu sax nawet rek Kaolack da daan tooy xepp xepp xepp ba doo am foo dem. buñ daanañ dem sax ba nawet bi jeex six mois après ndox mi nekk partout kanaat yi fees dell. Mhm. mu am ñoo xam ne ni dañuy génn seeni kër di dugg ci école yi. loolu nag biñ xoolee ni ñetti at yi yëpp biñ ci defee liñ ci def amatul wala bu amee am bu ndaw la kon nag loolu rek lañ mën a jël comme responsabilité leneen li ci des nag mooy am na jafe-jafe yoo xam ne ni réglé guñ ko mooy route nationale yi nga xam ne ni nekkul ci compétence maire. route yooyu waaye ñi ngi ci góorgóorlu ak AGEROUTE parce que da ngeen xam nag Sénégal depuis deux mille vingt ba léegi réew mi liggéey dafay jafe Covid bi dafa ñëw terrasse ñu ñu jóge fi à poste électoral yi mille vingt deux deux mille vingt trois ba mille vingt quatre. Mhm. Ah, léegi nag euh, alhamdulilah changé nañ gouvernement li des mooy liggéey. waaye ñun fépp foo xam ne ni équipe bi ñu àndal. Euh, woo nañ ñu ci dañoo dem régler ko te yàlla daf ñoo dimbali ndax matériel bi nga xam ne nii moom lañ prévoir woon jënd ko depuis deux mille vingt deux moo amoon ay blocage bi matériel bi ñëwee rek gis nga réglé na lu baree baree baree bare loo xam ne nii dañ ko daan mu di ñu coûté xaalis bu bari wala bala balaa marché bi pare nga sonn ci waaye loolu rek nañ ko lu jëm tamit ci wàllu ndimb li tamit def nañ ci ay tonn ceeb yaakaar naa liñ def ñun yéen séddale ko ci dëkk bi sax gouvernement bi def ko. Mm-hmm. voilà ci li ñu gis. Euh, à travers ci seen moyen bopp. waaw ci suñ moyen bopp. Mm-hmm. waaw mooy maire bi la mooy askan bi mm-hmm. kon nag waa Kaolack yépp ñoo ko def ndax suñ ma dénkee seen alal soxla nañ ci ñu dimbali ci ñu néew doole loolu mooy li nga xam ne nii moo ñu war te def nañ ko. d'accord loolu am na solo monsieur le maire barki démb euh, président de la république ñëw na fii si euh, diwaan gi di Medina Baye comme niñ koy amale rek gàmmu ak ni mu nekkee tradition religieuse. mu ñëw mais gisuñu la nga teew ban explication nga mën a joxe si noonu. waaw non xam nga dama fi nekkul woon xam nga bi ma àndeek ak président euh, man bi ma paree dama amoon yeneen mbir yu ma fa doon dox. Mhm. voilà bañ fay jógee sax programme bi le douze la ñu waxoon jeudi. jeudi bi ci la programme woon waroon naa ñëw. Mhm. mais far après président rapproché ko mercredi ndax xam naa ne. ak événement yi am moo tax mu rapproché ko. loolu tax fekkuma fa waaye maire du kenn nit am naa 17 adjoint mm-hmm. am naa équipe boo xam ne c'était très te wax dëgg yàlla taxawaay bi rafet président de la république ba mu dem ba yëkkati ay kàddu en terme d'infrastructure euh, ne de gouvernement bi dina si jéemat ay jéego ndax Kaolack dëkk boo xam ne la gis nañ bu gaamu jotee ay million millions yi doomi aadama ñooy bàyyee ko fu nekk si àdduna bi ngir ñëw fi nan nga nan nga nan ngay wax si lool waaw xam nga Kaolack moom. Mm-hmm. yàlla daf ay kilifa yu diine yu mag. Mhm. boo ko ci commencé ci eh, Cheikh Hamid Kane. ni mooy teewoon fii. Mhm. jël Alaaji Abdoulaye nga xam ne ni mooy bàyyi bàyyi jël bàyyi ci boppam jël Serigne Bachir Mbacke. Mhm. jël kilifa diine yépp nga xam ne ni tarixa yépp muy xaadriya muy omar yéen muy ñëpp dañ fi am base. kon Kaolack dafa war a nekk lu ñu war a defal. Mhm. Kaolack nag depuis 2000 ba léegi xawma lu ci xew tiraillement politique waaye toppatoo wuñ ko kon bu président ñëwee ne dana ko defar dañ koy ñaanal yàlla mu man ko defar. ñun mhm. tamit ñu jàpp ci pour mu mën a defaru parce que jël rajo yeeg média yi di ci xuloo lu ci ëpp solo mooy euh, dal wax ak gouvernement bi mu ñëw defar li mu war a defar ñu sant ko gërëm ko. Euh, te Kaolack tamit dafa nekk dëkk boo xam ne nii c'est rare ñuy contre nguur ndax kilifa diine yee tax. Mm-hmm. loolu nag war naa tax nguur gu fi nekk rek nga jàpp ci man damay sant yàlla ci yàlla ma baax ma nekk maire Kaolack maire Kaolack du lu ndaw. Mm-hmm. maire Kaolack moo gën a jafe sax maire ci Sénégal yëpp ndax sensibilité politique économique religieux culturel ethnique dafay bari. kon loolu moom dama tey en terme de de de d' économie Kaolack c'est la deuxième ville en terme d' ci budget mhm. parce que sax ñun bi ñu ñëwee ci benn at rek budget bi 4 milliards lañ jële ñu jëlee ko 8 milliards amul benn buñ ci suñ loxo duggul ñu def ci lu ëpp li nga xam ne nii depuis vingt ans yi defuñ ko soo demee ci wàllu école yi liñ ci def kenn def ko ci soo demee ci wàllu santé bi liñ ki def kenn def ko ci soo demee ci wàllu sport bi liñ ci def kenn defu ci soo demee ci wàllu marché yi liñ ci def kenn def ko ci te pareeguñ ak yeneen ak yeneen ak tamit innovation yoo xam ne mi ngi jëm ci wàllu digitalisation innovation yi jëm service municipaux yëpp ñu ngi ci ak recrutement bu am solo mun recruter ndaw ñi fii ñuy liggéey loolu wax dëgg yàlla ñu ngi ci te incha allah xëy na nag moom li ñuy wax ne lu nit daw daw lu tee ñu làbbale ko hmm. loolu dañ koy nangu daal d' accord lu fas daw daw te loolu am na solo xam naa si biir émission bi dinañu ñëw taxaw xuus bu baax a baax si nga xam ne kon mooy li soxal Kaolack parce que am na ay yóbbante yu bëree bëri yoo xam ne ay doomi Kaolack ñoom ñoo ma ko jox ngir ma daal la koy yeggee hmm. ndax loolu mooy solo su émission bi bu ñu ñëwee Kaolack ñu taal di taxaw waxtaanee ko euh, monsieur le maire euh, yaa ngi woon sa daanu Chine euh, ab lëkkaloo boo xam ne si ñaari réew yooyu si wàllum koom-koom waaye tamit si wàllum diplomatie gannaaw séjour bi nga xam ne am ko foofu kon ban taxawaay ak ban jàng ngay fas yéene def gannaaw yaa ngi woon ak président de la république. non man Chine maa ngi fi njëkk dem 1994. d' accord Chine Ablaye Wade sax bi muy def di rétablir relation diplomatique yi. Hmm. Euh, ci ñi ko doon taxaw laa bokk ambassade bi ñu fi njëkk a nommé euh, man maa àndoon ak moom pour installer ko. Hmm. kon je pense que euh, président Diomaye yóbbu na ma Chine waaye man tamit yóbbu naa ko Chine. ndax yóbbu gi ñu ko yóbbu ñun tamit mooy opérateur économique yi nga xam ne ñun ñoo fa nekk ñun ñoo tax mu war faa dem ndax mbir mi yëpp tournée yëpp coopération la waaye économie la président chinois buy ñëw fii to jàppale ay opérateurs économiques moom pour ñu ñëw mën a euh, bokk ci euh, développement Sénégal am lu ñu am yóbbu yóbbuñ ko seen dëkk ñun tamit dem gi ñuy dem Chine lool la dañoo war a dem am luñ fa am indil ko suñ dëkk. Mm-hmm. mooy usines yi ak loolu kon jàngat li ma ko gisee baax na mais du la ñeneen doon def rek lañ ko def. mooy dem indi ay chinois ñu def fi ay usine wala ñu indi fi ay commerce du loolu déedéet li gën moom mooy chinois yi bu ñëwee ñu ànd ak doomu sénégalais yi liggéey technologie bi des fi chinois yi loolu lañ def ba réussir liñ réussir tey ñun nag bu ñu bëggee réussir loolu te defuñu li chinois yi def dañuy toogaat rek ki nooteel li ñuy nekk ndax doomu aadama bu fekkee saa yu ñëwee mhm. jox la may la wala mu ñëw nekk ci sa biir di defar di jox sa njaboot ñuy lekk déedéet du noonu yaakaar naa président Bachir dégg na liñ ko wax comprendre na ko te wax na ko sax bi ñu toogee ak moom tout le temps su ko waxee mi ngi koy répété nag li ki des mooy administration bi yëpp nekk dans la même vision doxale noonu ndax président rek du yorum réew président vision lay joxe danaan lii laa bëgg kenn ku ne nekk ci. ñun daal loolu lañ gis te ñun ci lañ nekk. il paraît que foofu am nga fa marché fa gañe xanaa. foofu kenn du gañe marché. wala nga laqaati fa ay marché xanaa. laqaati marché tamit di nga joxe marché kooku laqaati kooku man. est nga xam ne léeg-léeg ñun bu ñu ànd ak hmm. ñun dañuy jëmbal président la république foofu ñun mën nañ topptoo li ñuy toppatoo foofu sans l' appui du président de la république ñun mën nañ ko xam nga lan lañ soxla mooy lañ fay toppatoo buñ dikkee ci réew mi ñu jox ñu marché yi fii waaye Chine moom ñun damay wax ne buñ fay dem. Hmm. Euh, président la république kii la tuddee symbole la ànd ak moom rek dafa nekk crédibilité waaye boo àndeek moom te yow jéemoo dara doo fa am dara du moom moo lay topp la nga koy topp voilà loolu daal laa la ko wax c'est-à-dire nit ñi buñ buñ buñ jaawale ndax euh, président Macky Sall daana jël ay patronat yëpp yóbbu ñu dem ñu dem ci école yi tëdd ñu dem ci hôtel yi tëdd fa rek bu paree ñu ñibbisi léeg-léeg sax euh, soo demalee sa bopp te yow nga xam li nga mën a liggéeyante mën nga faa liggéeyante waaye nag la koy sottil ba nga xam ne nii ka nga yëqal euh, ka nga siqal dana dana gën a ñeme Sénégal mooy sa autorité mu sentir na sa autorité mi ngi sa gannaaw te loolu àdduna bépp la mm-hmm. voilà àdduna bépp la àdduna bépp euh, noonu lay doxee na d'accord loolu leer na ñu taxaw nag si actualité bi nga xam ne kon moom moo dox si biir assemblée nationale ndax président de la république ni ki démb kon daan na amal ab discours à la nation boo xam ne euh, gis nañ ne tas na assemblée nationale bi ñu fas yéene amal élection législative bi fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre bi ñu jëm. mu nekk nag euh, loo xam ni kon nemmeeku nañ ko ma bàyyi rek nga wax naka nga jàngatee situation bi. waaw non situation bi euh, loi bi may na ko ko mu def ko. Mhm. te li ko ko loi bi maye mooy euh, président de la république saa yu demee ba yaakaar ne assemblée bi mënut liggéey ak moom. Mhm. yoon may na ko ci délai bi nga xam ne ci ñaari at mu mën ko tas. yoon may na ko ko tas na ko fixé na date élection bi dellowaat na peuple bi parce que il faut que nit ñi xam ne. président jëlaatul pouvoir dafa jël pouvoir bi delloowaat ko population bi population bi ñoo koy tànnalaat ay député loolu est-ce am na commentaire bu bari. ok mais gis nañu aussi contestation yi bari na par rapport ak euh, peut-être président dafa par parjure waat ba pare wéet waat boppam si opposition bi nga xam ne kon ñoom ñoo nekk si assemblée nationale. waaw ku ne ni ko gisee rek. Hmm. président xam nga moo wax na ne jubluwu ci loolu wax na ko ton hmm. na ci. Hmm. waaye moom yoon moo ko may. Mm. def na ko jeex na. man noonu rek laa ci gis keneen ñi ko contre nañ dem wàcc ci terrain bi rek fexe amaati député rek. Mm-hmm. ndax mbir mi contestation bi ci législative bi ñëwaat la waaye fii moom amatul contestation. d'accord fii ak le 17 euh, novembre xanaa pare nga pour dugg si liste wala nga taxawal sa sa parti bi mu dugg si liste. non man góoma ne danañ suñ parti mm. danañ taxawal lis góoma ko mm. waaye moom moo ko moom moo ko man rek. waaw moom moo ko man rek góomu ko parce que daal li nga gën a gis mooy euh, contribution c'est-à-dire politique wala d'opposition de contribution mooy jàppale ñi mhm. ñu mën a liggéey su dee lu ñëw rek nga nekk ci opposition ci opposition ngay nekk rek déedéet ñun gisewuñ loolu ñun dañ doon ñëw pour defar mhm. euh, am nañ yaakaar ci ñi bon nañ nañ ci jàpp daal man daal danaa waxtaan ak ñi ma ñi ma ko seq daal waaw d' accord di nga wax ni nga peut être peut être euh, bu fekkee ñoom bëgg nañ nga investi nga investir sa liste ngir dem xanaa boobaa euh, tamit doo ànd ak comme ni nga ne pare nga pour jàppale président Diomaye si gouvernement bi wala premier ministre Ousmane Sonko. bien sûr. Mhm. pare naa koy leen bu baax a baax. si législative bi. waaw. <laughs> d' accord loolu leer na alors gis nañ aussi li nga xam ne kon moom moo moom moo nekk euh, si réew mi ñu bëri ñàkk seen bakkan si mbuur situation bu nekk situation bu doy waar naka nga ko jàngate waaw lu metti la phénomène la boo xam ne nii ñun ñëpp ñu ngi koy dund waaye man phénomène boobu dama cee tay ndax ba ma ci gëj ba ma ci commencé wax kenn xamul kañ la yaakaar mille set laa ci commencé wax. Mhm. ba demoon France ba ba ministre de l' intérieur France recevoir ma ba ñëw fii. Mhm. Euh, def fi ay accord Sénégal il faut que ñaar mooy mu lijjanti ay accord au niveau bitim réew. ba ñuy dem mën a dem ci yoon. bu hmm. normal te tubaab bi duñ bañ loolu ndax dañ leen a soxla ñaareel ba mooy ñu fexe toppatoo suñu économie suñu économie. Hmm. liggéey baa ngi fi waaye étranger yi koy jël parce que benn bi mooy euh, sénégalais yi dañ leen a formé wul ci nangoo liggéey koo ci gis day wut liggéey lu ma am baax na waaye bu fa toogee ba toog fa lu mat at commencé tànki bukki. Hmm. commencé naan waaw sama lii sama laa sama laa kon gis nga dama gis sax lu garaaw luy am. Mm-hmm. lu garaaw luy am mooy sénégalais yi sax léegi ñu ngi commencé di recruter ay étranger mm-hmm. ci seen liggéey téye leen ndax ñooñu jàmbat bi bariwul wala bis booy tàqaloog ñoom bu jàmbat bi bari booy tàqaloog ñoom du du jafe loolu nag mooy dañu war a euh, yóbbu sénégalais yi ci culture de travail ñun Kaolack sax commencé nañ ko. Euh, semaine prochaine danañ jël cent cinquante personnes ànd ak ñoom ak armée bi ñu defal leen formation de civisme et de citoyenneté sénégalais bu ne xam ko xam lan mooy ordre xam lan mooy euh, hiérarchie xam lan mooy euh, kii njariñu liggéey ci foofu la ñu war a yóbbu sénégalais yi mhm. bu neen leen fa yóbboo nag bu ñu paree nag après en même temps ñu def ay industrie parce que ñu bari ñi ngi def ay industrie recruter ay nit waaye fi ne nii foo recruter ay nit bu ñu matee cent personnes rek nga gis jàmbat bi problème bi commencé am gis nga chinois yi fi ñëw sax nga xam ne nii xamuñ loolu dañuy dem ba nga xam ne nii dañuy maltraité liggéeykat yi ci seen i dëkk ci seen i branche wala ñu dem jëli ay chinois ñu ñëw liggéeyal leen kon je pense que première moom mooy fexe ba Sénégal yi am civisme ak liggéey ndax aw ak civisme ak citoyenneté ndax defarum réew du defaru ay tali du defaru nangam defar jikko yi daf ci am solo mm-hmm. jikko yi daf ci daf ci am solo daal d' accord alors dama bëggoon ñu dellusiwaat rek fi nga xam ne kon moom mooy fii si kaw Kaolack ngir rek mun se waxtaan ay ponk yu baree bare tey suba gi rek ñu ngi fi nga xam ne kon moom mooy si bopp moomeel bi yaa ngi doon amal ay euh, ay dons subvention nga doon joxe wala la ma fa xewoon exactement. waaw subvention kii lañ doon joxe ci suba subvention ci équipe football bi. d' accord alors ñun bu wax dëgg yàlla waluru ay vingt trois millions lañ fekk fi mhm. mais dëgg ka dañoo xam sport général lu am solo la ci. ci kaw Kaolack looloo tax ñu yokk ko di yokk ba tey ba année bi jox nañ leen soixante neuf millions waaye dañ leen wax nag déwén nii ñu koy joxee dañ ko ni joxe déwén kenn ku ne day ñëw ak projet am ñu jàppale la ba nga xam ne ni yow projet bi nga am da ci mën a am loo dundale sa bopp du too laajati subvention waaw ndax xëy nit di ko jox un million par at yëkkati lu ma dix millions jox ko si yéen moom en protocole mu liggéey remboursé ko ba pare tamit euh, mën a mënal boppam man noonu laa gën a gis ci subvention parce que football Sénégal rek ngay gisee footballeur yuy wër di laaj ay subvention ci monde bi entier footballeur yi. Mm-hmm. Euh, seen équipe yi day produire ay recherche seen équipe bi day day am euh, public bu am doole buy cotiser. Mm-hmm. waaye nag Sénégal moo dundee noonu ba nga xam ne nii. Euh, euh, équipe yi amuñu doole bari nañ bari nañ au lieu que Kaolack moo am ñaar wala ñett équipe yu am doole. Hmm. Euh, ñu liggéey mais ku nekk sa équipe daanaka mooy li am fépp rek lu waaye di am rek syndicat yeeg jumaa yeeg jàkka yeeg ku ne sa bopp rek loolu nag day indi division boo xam ne nii du mën a yóbbu réew mi fenn te alxuraan moo ko wax wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba riihukum nee na bu ngeen tàqalikoo tasaaroo seen doole day wàññi hmm. loolu nag ci lépp la. waaw ci lépp la ci presse bi ak ñëpp Sénégal daal moo nekk dëkk boo xam ne ku ne sama sama sunu moom bariwu fi sama rek. sama rek comme ni nga waxee. Mm. alors euh, Kaolack am na ñuy kaas tali yu yàqu yi tali yu bon euh, boo jëlee euh, route nationale numéro de bi même buy jëm sa kër di dem fi nga xam ne kon moom mooy moom mooy ville tali bi gis nañ ne jagul lu si bëri nag danga naan compétence u état la mais jàppaloo ne tey. Euh, monsieur le maire am nga si responsabilité en tant que premier magistrat de la ville si ki nga xam ne yow yaa représenté état bi si commune bi lan mooy sa projet si wàllum tali si yenn tali yu bëri yoo xam ne kon fi mu ne nii dafa am ba si kaw la. waaw xam nga li may njëkk a xool mooy. Mhm. fan laa ko fekkoon. Kaolack moom yaakaar naa ñun tali bii dañoo judd fekk ko fi mu mel nii mu mel tali national li mënoo dañoo judd fekk ko mu mel nii mu mel. Mhm. daanaka tubaab bi ñoo ko fi defoon état bi nag wax dëgg yàlla état yi jaar yëpp joxuñ ko cër bi ko war a jox ñun waxuma la sax avant ñuy nekk maire mais bi nekkee chambre de commerce dox nañ ci ba tey ah, am nañ yaakaar nag ndax ñëw nañ fi ñu def tournée bañ wax ne fii dañ koy def deux fois deux fois danañ ko defaraat en tout cas projet yi ñoom wax nañ ne dinañ ko def si wan nañ ñu contrat yi wax nañ ñu lépp ñun foofu la suñ liggéey mën a yem suñu liggéey fi ñu mën a yem mooy dem wax ak ñoom wax ak ñoom ba ñu war ko defar loolu incha allah yaakaar naa danañ ko defar waaye nag ah, yéex na. tax na man responsable numéro un man la ndax euh, man maa war a defar wala ma dem seeti ka def war a defar mu defar waaye nag loolu tamit ñi ngi koy defar da di ci war a jàppale ndax wax bi du doon benn nit man damaa porte voix bi mais ñoom ñëpp dañoo war a jóg porte voix bi parce que Kaolack xëyun rek di vote pour kenn nit bu ñuy vote dañoo fal ay conseil dañuy woote woon fay ay conseils départementaux dañuy woote fay ay député dañoo am ay directeurs sociétés yoo xam ne Kaolack lañ dëkk wala ay responsable politique yoo xam ne ne ñi ngi fi nekkal parti bi ñooñu ñëpp dañ ci war a wax bu ñoo ñëppee na jëlee daw responsabilité ne lépp maire y a pas de problème maire dana ko endossé dana wax tamit ne ñun ñëpp nañ ci jàpp rek ak kilifa diine yi tamit ndax kilifa diine yi tamit war nañ bu euh, bu bu état bi ñëwee ñu wax ak moom xam naa ne lii suñ sëriñ bi waxoon da kuy doog di ñëw doo ko tañ soxla waaye soxla yi ngay sañ sant ki yorum réew santoo ko ko sa soxlas bopp sa soxlas réew mi nga ko soxla parce que loolu la kooku moom balaa nit a toog sax war nañ koy sant naan ko boo toogee defal ñu di bu toogee waruñ ko may temps président Sonko waxoon war nañ ko may temps pour mu defar li mu war a def léegi nag defar loolu lépp mënta nekk nit ki dangay ngay xool ne mi ngi def ay jéego jéego yooyu nga war a def gis nañ jéego yi ngi def wax dëgg yàlla bi tali bi ñëwee ñu ngi koy defar te tali bi ñoom ñoo ko yàq ndax tali bi sax mënoon na dox mu war a def camion yi defar autoroute bi ñoo jaar fii ci tali bi yàqu voilà ñooñu nag lañ waroon a fexe ñu defar ko loolu ñëpp ko seetaan nag ñuy jaar fii di ko yàq parce que bu fàtte nag ne euh, maire yi daf fee nekk mais y a l'administration euh, ñi nga xam ne ni exécutif mooy préfet ak gouverneur ak ñu ñëpp ñëpp ne dañoo taxaw war a wax ci loo xam ne nii bu yàq dëkk bi ñu taxaw ni lii baaxul waaye tali yi moom dañ koo yàq dañ koo yàq ne defaruñ ko mhm. waaw alors euh, lu jëm aussi si li nga xam ne kon moom mooy projet Promoville fii si commune bu Kaolack mhm. gis nañ ne dooral nañ chantier bi mais dafa mel ni euh, projet boobu kon dafa taxaw ban taxawaay la mairie Kaolack am si wàllum contrôle ndax ñëpp xam nañ ne acte 3 de la euh, kon moom moo daal di jox pouvoir euh, mairie ngir mu contrôler li nga xam ne kon moom mooy lu jëm si wàllum mu suivre li nga xam ne kon moom mooy ay projets yi gouvernement bi teg ban taxawaay ngeen si am. si wàllum ah, contrôle waaw nga yooyu ñun suñu gis-gis. Mhm. suñu gis-gis léeg la da jël projet bi jox ko équipe mu nekk ca nga leen di fay salaire ñuy jëndi oto je pense que dem renforcer seen ni mu mel jox maire yi jox leen orientation bi contrôler ko ñoom ñu liggéeyal seen bopp moo gën promo euh, Promovilles fii Fera fii bëree bëri euh, en tout cas ñoom de gis naa ne ñu léegi ñu ngi jéem a góorgóorlu mais impact bi bëriwul. Mm-hmm. waaw parce que soo laajee xaalis suñ la joxee budget bi ne la def nañ fi ay milliards lañ la jox. mënoon nañ ko def lu gën a lu gën a lu gën a lu gën a yomb ci loolu waaye ndegam dañoo nekk ci espace ci eh, as jubbanti mhm. ñu yaakaar ne gouvernement bi da jubbanti loolu parce que projet yi programme yi dafa bari mhm. dafa baree baree baree bari ba nga xam ne ni doo ci retrouvé wu sax ñoom ci seen bopp sax Ageroute ngi fii Promoville a ngi fii Fera a fii euh, kii de de na daal bari na daal soo doon laaj tey daanaka nag nga gis lu mat ay ay ay vingt projets yoo xam ne nii rien que fonctionnement rek mën naa defar mën naa bu ñu ko joxoon maire yi ñu defar en tout cas man ñoom li ñuy fonctionner. que mhm. ma ko jox ma def lu ëpp li ñuy def. Mhm. waaw d'accord am nañu euh, joxeaat beneen laaj ci jëm si wàllum reboisement euh, kon jëmbat gi nga xam ñu ngi koy jëmbat garab gi à travers gis nañ euh, tout récemment journée nationale de l'arbre bi nga xam ñu ko doon amal mais gis nañ ne problème suivi ba tey dafa am fii si Kaolack mhm. <coughs> que bu yenn garab yi yenn saa yi du ñu respecté li nga xam ne mooy suivi bi aussi ban taxawaay la si commune bi am ndax da ngeen a fuir seen responsabilité wala lan mooy problème non xam nga jëmbatu garab Mm. léeg-léeg dafa dem ba nekk benn business boo xam ne ku ne ngi wax naan jëmbat jëmbat waaye lu am solo la lu am solo la ci ci dëkk bi ndax euh, gis nañ ni am na association yu koy yu koy def mm-hmm. euh, yu koy def bu baax léegi nag ñun dañuy expérimente dara ndax dañoo bëgg a def lu durable soo xoolee fii ñaar li fa la ñu ko jëmbat dañ ko wërale woon ak ay mool waaye gis nga d'accord ànd nañu ak bi jox ko ay moyens ba mu ñu koy clôturer ñun dañoo bëgg def ay espace au lieu que ngay def jëmbat jëmbat jëmbat dem nga dem benn espace. Mhm. def fa lu bari toppatoo ko ba mu am doole. comme ni muy amee Europe Europe ay garab bari na waaye da ngay dem fekk benn espace bu mag mu nekk wenn jardin ñun loolu loolu lañ bëgg expérimenter. Mhm. boo jaaree ñaar tali léegi mën nga koo xool nañ ko commencé defaree euh, te loolu lañ bëgg a defar dëkk bi yëpp incha allah. Mhm. am nañ une partie de budget mais dañoo bëgg utiliser ko ak eaux et forêt moom am na xam-xam bi. am na possibilité suñ ko joxee ay moyens mu suivre ko ba pare ñun daal lu ñuy def dañuy bëgg def dañuy bañ a def amateurisme dañuy fekk am na ay direction yu fi nekk ñu ànd ak ñoom liggéey comme nañ def ak euh, service d'hygiène def ak kook sapeur pompier def kook armée bi loolu mooy philosophie bi ñu bëgg a demee au lieu Euh, sama sama sama maire mi nangam da gis nag léeg-léeg da nga gis loo xam ne ci sa dynamique la amee da gis loo xam ne nii eh, mooy yow yaa ko génne lépp ñu def ñu ne diw ko def mais dëgg la moom moo ko def waaye ñun ñoo ko ko euh, ñoo ko may lu tax mu def ko ko ndax maire yi compétence yi mu am euh, su ko mënee def da koy defal boppam su ko mënut a def moo mën na ko def sax waaye li gën a rafet mooy fekk ka nga xam ne nii. moo ko moom la moom moo nekk moo yor bras technique bi maire dafa am bras technique maire dafa am bras technique mooy toutes les euh, directions yi nekk fii c'est des bras techniques maire yi maire dafa am bras administratif mooy préfet maire dafa am bras juridique mooy procureur maire dafa am bras financier mooy percepteur ñooñu ñëpp nag kenn ko ne boo utiliser seeni compétence rek da nga mën a def résultat ñun dañ fi yàggagul nag xam deux ans et demi lañ fi defagul fekk nañ fi yàqu-yàqu yoo xam ne nii ëpp na cinquante ans mais ñi ngi ci ndax ku gis Kaolack gis nga ne xar kanam mi ngi changé bu baax a baax ci domaine bu ne waaye nag euh, nuñ ko matal te duñ ko matal bu mukk ndax doomu aadama moom il n'est jamais am tey suba mu soxlawaat leneen loolu mooy nit. Hmm. nit bu fekkee dafa doylu rek day mujj dem comme mala. mala moom la yàlla def moom lim am tey ak déwén ak yëpp moom loolu rek da bu suuree rek te dina daw doomu aadama nag lu am day wuti progrès te loolu lañ d'accord. Mhm. voilà. lu jëm si wàllu mbalit nag déchet solide bi xam ne. waaw ah, loolu moom xam nga ne jeex na fi. wala bu bu nekk jeex na fi ci artères yi nga xam ne boo daan dugg Kaolack moo lay teeru booy génn moo lay teeru. Mhm. ñi ngi de ñi ngi defaraat balaat de Kaolack waa da nga gis booy dugg ci kanam tuuti yëpp fii yëpp lu tax defaraguñ ko rek dañuy xaar waa Ageroute déterminer li ñu war a def parce que buñ fa demee def fa dara fekk ba pare te ñun euh, xamaguñ euh, buñ fa defee dara te ñun xamaguñ ñoom niñ bëgg a tracé looloo tax ñuy xaar daal. d' accord waa Maalum euh, ak euh, seen almeer yi kon nee na ñu ngi jànkuwut ay jafe-jafe ndax ba demee si biir almeer bi kon foofu dafay taa collecteur ba si baaxul ndax am ngeen prévoir ngeen aussi. non loolu réglé nañ ko réglé nañ ko collecteur bi moo des mais ndox ma moom dindi nañ ko. Mhm. waaw cimetière yi Maalum. waaw dindi nañ ko ndox ma dañ. d' accord waaw demoon d' accord loolu am na solo. alors monsieur le maire xam naa du ñu yàgg ak yow ndax lu soxal wàllum Kaolack kon moo nekkoon lu ëpp solo si waxtaan bi bu fekkee ne am na projet yi nga xam ne kon yeneen koy nas xëy na peut-être ngir jagleel ko ndaw ñi ngir jagleel ko askanu Kaolack ma bàyyi rek nga daal di koy développé. nag a jekk ñun mi ñu fi nekkee depuis deux mille euh, dix ba léegi. Mm-hmm. ay projet yuy yu ndaw ñi di jariñoo la doomu aadama nag ñu bari ñu bëgg liggéey wala ñu amee projet bu ñu amee seeni projet rek. Euh, dañ ci toppatoo di liggéey nekkuñ ci dëkk bi coow soo demee chambre de commerce bu dee projet mbay hmm. bu dee projet encadré jigéen ñi bu dee projet encadré jeunes yi bu dee marché bi bu dee lu mënti doon artisan yi leen lu ne mën nañ ci jël ne lii lañ ci def mu nekk lu am solo euh, beneen yi nga xam ne nii tamit moo jëm ci liggéey xam ngeen ne tey euh, daanaka Kaolack mën naa ne ne en dehors de affaire maire je suis le premier employeur ndax hmm. soo jëlee lii liggéeyee Euh, cœur de ville waxuma la en terme de gestion gestion mooy ñiy gérer cœur de ville. Mhm. mais ña fa nekk di jariñu je pense que boo ko dajale woon tey ëpp nañ deux mille personnes. Mhm. loolu effet la bu am solo la waaw parce que léeg-léeg nit ñi da ngay dégg ñu ne euh, cœur de ville lu mu amal njariñ Kaolack waa léegi nañ tëj cœur de ville suba danañ xam ba xam lu mu amal njariñ Kaolack. ñu koy wax bari na de. waaw waa léegi nañ ko tëj waa léegi nañ ko tëj suba rek nañ wax ne au sant jiwul cœur de ville tëju na nañ xam rek ba nga xam. nañ tey ba xam kan moo ci sonn kan moo ci kan moo ci jariñoo kan moo ci dul jariñoo léegi rek loolu jël imaginaire suba on ferme cœur de ville rek ba xam lan mooy xew Kaolack hmm. ah. gis nañ benn dossier buy traîner en justice yow ak ñenn ci population askanu Sénégal ban leeral ngay def si loolu. ban dossier dama ko gis rek benn dossier. waaw tribunal ñu def commune de Kaolack tribunal renvoyé xaw ma octobre xaw ma nu mu noonu. waaw non boobu xam nga ay politiciens ñoo nekk ci gannaaw rek mais ñàkk xam la. Hmm. xam nga maire yi Euh, nekk loi bi mun ba mayul benn citoyen tous les jours ngay dugg gestion maire yi naan maire yi def na lii maire yi def na lii non non maire yi soo amee du la ci jaaxal dangay ngay bind maire nga laaj ko citoyen bu ne am na ko am na ci droit te loolu sax am na limite boo xam ne fa ay budget nga mën a laaj ay nangam ay nangam loolu nga mën a laaj beneen bi ci des moom boo amee looy dénoncé da nga koy yóbbu ci cour de ci euh, corps de contrôle nga dénoncé au niveau de OFNAC nga dénoncé au niveau de cours suprême parce que gouvernement ci boppam mënul dégg ci mbedd rek dem porte plainte euh, wala day dem am rapport bu leer mu jox ko procureur procureur base ci rapport bind mais toog sa bopp defar sa bopp rapport dem di porte plainte léegi li ñu def dafa garaaw parce que diffamé nañ mairie outrage mairie c'est un administ euh, c'est magistrat administratif mhm. jël nañ ay document di ko publier xam nañ leen dañ leen di bàyyi rek bañ pare ñu jàngate bañ xam ne lii yotu tegaat leen ci yoon bañ tegu ci yoon mhm. voilà léegi nag eh, damaa bëgg nag buñ paree incha allah maire ndax maire si le maire c'est le premier magistrat mhm. suñ pare rek danañ ñun liñ ci war a def danañ ko def maa ngi lay sant la gërëm fekk am nga message booy tàggatoo rek mu bàyyi nga tàggatoo ak waaw tàggatoo kay ah, xanaa gërëm la sant la rek ah. waaw yow ci kër gi nga bokk yaa ngi ak ñun toujours xanaa tàggatoog auditeurs yi ñuy déglu rek. Mhm. leen sant leen gërëm. Mhm. di ñaan yàlla daal Sénégal euh, Sénégal daal dafa nekk dëkk boo xam ne ni daal yàlla barkeel nañu waaye suñ bàyyiwul wax ji te lii. Mhm. bàyyi politique bi te lii ah. yàlla daal li wax leer na nee na daal inna llaaha laa yughayyiru maa bi qawmin hattaa yughayyiru maa bi anfusihim man du soppi dara ci yéen tànk soppi ku leen suñ soppi ko woon nag duñ dem fenn Afrique ngi àdduna bi romb nañu bu yàgg Afrique ngi ñëw beneen ngi nii ñu ngi ñëw barki dem ñu ngi nekk fii di wax naan employé ay trois ay deux mille personnes quatre mille personnes ci affaire textile benn mi ngi ci trois cent mille personnes. doomu textile bi. Ah? waaw dégg naa ñu ne sax maye coupe du monde fa lañ koy ñëwee. Mm-hmm. waaw ah macha allah loolu moom am na solo. déet am na solo ci ah. benn waaye ñun ñoo ko waroon a def. Mm-hmm. am na solo kay amul amul solo ñun kay fii la war a ame solo nag dëgg dëgg yëfi jàmbur moom si ñoon new ci kenn ku ne da ngay toppatoo yéene nañ leen ko yéene nag waaye kenn ku ne da ngay toppatoo sa bopp boo toppatoo sa bopp rek dëkk bi dox waaye ñun dañoo man di émerveillé beneen lii fa xew États-Unis lii fa xew. historiens yi boo toogee bu ñuy wax économie dañuy wax éco sa à dire les Sénégalais connaissent mieux que ce qui se passe à l'étranger que mm-hmm. ñun. dañuy apprécier rek lu baax ci biti. waaye di jéem a te ñoo ci jiitu woon naat bi ñu am ay industrie textile benn amu ko waaye nag mm, dégg la ñuy wax de euh, àdduna baa ngi dox daal ñun ñu ngi xuloo rek waaye àdduna baa ngi dox. d'accord. est-ce que du yéen yéen amu leen ci responsabilité. ñëpp si am responsabilité. kon yéen a ci jiitu de parce que yéen yéenay tas léeg-léeg mbir day ndaw rek ngeen tasa tasa tas ko ba mel ne àdduna bi di tukki xam nga <laughs> benn waaye daf ma wax mu ne ma. Sénégal dañuy dégg gam gis wedd mën a ma benn benn kilifa bële benn kilifa benn préfet mu ne ma waaw wax nga dëgg de ndax man damay yore léegi benn dossier di ko liggéenti di ci dégg ci loo xam ne damay toggum yàgg ma ne waa man li ma gis li may dégg daa mel ne dafa wuute de baat li may dégg moom man damaa juum hmm. <laughs> léeg daal loolu dafay bari dafay bari dégg bi daal daa bari trop trop trop hmm. Hmm. waaw jërëjëf koo ci wax daal moo naan danaa la dégg naa waaye gis naa bariwul de ñu lay sant la donc mu ngi noonu alors di gërëm Abdou Aziz Marouna li ma sànce nii moom moo ko moom moo ko ñaw donc di ab benn jeune entrepreneur boo xam ne fii la nekk fii si Kaolack mun ngeen ko woo si 77 178 94 48 di sant jee si caméra bi di sant yéen ñi farewoon si teewlu bi dig dajal leen ba beneen yoon ak beneen kilifa si suñu jotaay si Sénégal 7 TV jaa ngeen jëf. dafa rootee ji baaru Kajoor may way ku jara way moo ñu tuuse ay leer may bi ci lislaam xamal ma ko doon